mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala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 wasalaatu wasalaamu ala nabiyil karim sidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain kon ci ndigalul Cheikh Amadou Muntaqa mi nga xam ne te ji may wax ak yéen yàlla dogal na képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa mooy sa kilifa te nuy ñaan loolu yàgg ba li nga xam ne ñi ànd ak moom ci bëggu sëriñ bi ak ak jublu sëriñ bi yàgg ànd ak moom ba mott li nga xam ni mooy yéene ci sëriñ bi eh, baat yi nag noo ngi koy wax ànd ak bu cant di ko wax ànd ak xel mu dal waaye di ko wax itam ànd ak ak jaaxle cant gi moo di wax naa leen ko mooy di sëriñ bi kum digal sant yàlla nga war a def ndax loolu lañ seq ak moom mu di nu digal nuy def mu dee dinu tere nuy bàyyi te ku ne xam nañ lim nuy digal ci la ne ci la ne bëccëg ku ne xam ne lim nuy tere kenn du ci dégg kenn xamu ko ci kon loolu mooy waral cant yi noo ngi koy waxee ak xel mu dal ndax xam na ni lépp loo xam ne da koo wax eh, suñ njëriñ njëriñul taalibe bi yëpp la njëriñul waa kër Sëriñ Tuubaa yëpp la waaye njëriñul islaam ak jullit ñëpp la kon lépp loo xam ne aju na ci moom mu wax loo ko nit rek cant rek ci war jaaxale it am na ci ndax sëriñ bi euh, neexu la waxal moom ci jëmmam yàlla dimbale na ko ku mën a muñ la ku mën a jëllale la waaye jamono ji moo demee noo xam ne nii baat boo wax danañ ko ëcc di ko awte awte yóbbu ko fu mu dëkkut àggale ko foo xam ne àggu fa waaye nag li ñu dalal suñ xel rek dañ cee dellu moo di sëriñ moom xam na ni e, ku mat la ku yàlla matal la te ku mën a muñ la te xam na ni ñëpp a e, kenn ci matut kon loolu moom mooy li nga xam moom la ñu ubbee kàddu yi kàddu yi sëñ bi nee na moom Cheikh Amadou Mountakha xalifa général murid mu ngi nuyu mboolem jullit yi waaye rawatina mboolem taalib yi te tàmbalee nuyoo bi ci ñi nga xam ni bokki boppam lañu te bokk ak moom sëñ Touba te tey jii bu dul woon ak cëru sëñ Tuubaa ak ni sëriñ bi tërale kenn ku nekk ak moom yenn a yem képp ci moom kon mu ngi jiital nuyoo bi ci ñoom di àggale nuyoo bi ci mboolem njaboot gi taalibe yëpp bàyyiwul kenn seenu njaboot ak mboolem taalibe yi ndax njaboot yëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ di àggale nuyoo bi ci mboolem jullit ñi nga xam ne lépp loo xam ne sëriñ bi nekk na ci taalibe yi nekk na ci ñor na leen saf na leen ndax sëñ bi moom lépp lu muy nekk ak lépp lu ko ñor dara génn ci yàlla dara génn ci yonent bi kon dara génn ci lislaam kon ñoom ñépp mi ngi leen nuyu eh, kàddu yi nag li ko waral moo di jëm ci mbiru màggalu poroxaan xam ngeen ni fan yee eh, sëñ bi waxoon na jullit yi waxoon nag taalibe yi ci mbirum mbas mi nga xam ne dafa dellu siwaat ci réew mi dañuy wax ne dellu siwaat na ci réew mi te gën a yaatu bi yoon daanaka lii nu ciy wax day sosu rek ca loola day sofu rek ca loola euh, kon sëñ bi nee na mbirum màggalu poroxaan gi nga xam ne xam ngeen ni at mu ne dañ koy def ci poroxaan di ko defal sunu waajuru sang sunu waajuru yaakaar sunu waajuru sëriñ di maam jaara Buso mi nga xam ni ci ab liggéeyam ci yàlla topp yàllaam ak jaamu yàlla ak jëfe la ko sama borom digal moo tax ginnaaw inna laaha laa yudhi'u ajral muhsiniin ci la ko yàlla faye li mu ko fay waxuma sax sëñ Tuubaa ku ko yàlla fay muy cër boo xam ni kenn xamul nu mu waaye bisam bii nga xam ne muy màggal Porokhane bu agsi doo xam fu nit bokk doo xam kuy nit doo xam kuy sëriñub nit doo xam sax kuy diine nit ñépp fay daje ngir di ñaan ak di ko ñaanal loolu liggéeyal yàlla rek ko mën a may kon Eh, ni ngeen ko ne at mu ne ñëpp dañ fay daje di ko ñaanal yaakaar naa ni bu fekkee ni juumuma at miñ ko njëkk a def ci Cheikh Amadou Bachir nga xam ni moom la sëñ Touba sédde woon eh, dundal fa maam jaara nekk wattu ko ak taxawu ko at moom njëkkee màggal Poroxaan ak léegi defe naa ren jële ci juróom benn fukki at ak juróom-ñaar mbaa juróom-ñett booba ba léegi at mu ne dañ koy màggal mu tàmm ca ni ni ni niñ ko ni ko ni ko ñi ko ñi ko njëkk digal te fekkewuñ ko fekkewu ko moom ñoom ko njëkk a digal te ay taalibe yu nekk Saalum dañuy wax ni ba ñuy ñëw ay ginaar rek lañ rayoon màggale ko bis bu ginnaaw ba ñu fa jàngee alxuraan ak ak ak xasaayit lay gis ngeen ni mu toll kon màggal googu xam ngeen ni amul bis boo xam ne day dañ ko koy jàppal siñ bi rek mooy ci coobareem ci sëñ Basiiru ba ci sëñ Moustapha noonu lay demee mooy seet waxtu woo xam ne yaakaar na ni bu ko defee nit ñi mën caa daje mu jàpp bis boobu ñu daje ci xam ngeen ni at mii di deux mille vingt et un jàppoon na bisu màggal gi muy vingt cinq février ba tàmbali woon na ko yëgal kilifa yi waaye ginnaaw bi gis ngeen li fi dox ba waraloon waxi keroogam jooju mu doon wax ci ñetteelu fan janvier bi muy biñ ko xamalee ni euh, mbas mi dellu dellu siwaat na ci réew mi te gën naa yaatu daanaka daj na fépp muy euh, li tubaab yi di wax vague mm, te arab yi di ko wax mawji te wala fi mën ko wax waame nga xam ne dafa yaatu te metti te sëñ bi digle woon la mu ci digle woon jàng alxuraan saraxe ak jàng xasaayit bi sëñ bi seetee nag xam ne ni ko ni mu ko waxee woon keroog rek euh, wax ni atiu laa wa atiu rasul wa ulil amri minkum yàlla moom jagleelul kenn nit rek xam lépp ci àdduna yor lépp ci àdduna déedéet kenn ku ne dalaa séddib cër sedd la xam-xam jox la tuuti ñun ñii sunu cër mooy leenu nekk mooy jàng jàngale yeere te dara bañ cee génn lislaam lu nu jaaxal nu ñaan ko yàlla waaye am nañ suñuy bokk yoo xam ne ba tey ci nun lañ bokk ñoo xam ne yàlla sédd na leen benn beneen cër boobu moo di cër bu àdduna bi ñoom loolu lañ jàng fi la seen xam-xam jëm seen njëriñ li ñuy jëriñ it foofa la jëm loolu moo tax ba sama borom mi nga xam ni moom moom rekk xam doomu aadama moom rekk xam adduna moom mi ko bind moo moo tax mu wax ni bu ngeen toppee yàlla ba noppi topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ba noppi nag ki ngeen seqal adduna mu féete leen ci wàllu adduna na ngeen ko topp ci lépp loo xam ni ah, du yàq seen diine du yàq topp ngeen topp yàlla du yàq topp ngeen topp Seydina Muhammad lépp lu mu leen wax lu ko dul yàq rek na ngeen ànd moom ca loola sëñ bi waxaa na ko keroog fasalu ahla dikri wax ne foofu li fi yàlla jublu firi moom daanaka dafa yaatu kenn ku nekk na nga fire waaye li ci gën a nottu mooy dañuy wax ne ahlu dikri mooy ñi nga xam ne mooy ñi ma wax léegi ñi nga xam ne yàlla da leen a jagleel xam-xam yoo xam ne xëy na moom suñ xam-xam jëmu ci mooy li ma leen doon wax rek am na loo xam ne yàlla dañu koy jagleel waaye am na loo xam ne yàlla da koy jagleel lu mel nii bu amee nag yàlla dafa dafa wax ni ñu ñi nga xam ne ñoo ñu ci ëpp xam-xam lépp lu ñu wax nañ ko topp bu yàqut suñu diine loolu moo waraloon suñ bi wax la mu waxoon keroog ginnaaw nag ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu féete foofu ëpp nu ci xam-xam sama borom diggal nu loolu wax nañ ni seetlu nañ ni jàng nañ ni jàngat nañ ni eh, mbas mi li koy gën a yokk di ko gën a yaatal mooy jaxasoog nit ñi ak sell di kon looloo tax ba sëñ bi ko ne xam ne lool moom mawj bu njëkk ba muy wàgg bu njëkk ba waame bu njëkk ba kenn ku ne gis na taxawaay ba mu ci taxawoon ci wàll gépp ak ci fànn fànn yëpp digle na jëf na wane na joxe na lépp rek ngir jaam yi ñaan na lépp itam ngir yàlla génn ci ak jàmm ba la ca la ca la ca nekk lépp nun nun neen xam nan la ci sama borom def kon bu dellu seetee sëñ bi dul man dul dellu fa fa mu newoon rek loolu moo tax ba nee na bi mu jàppee màggalu Poroxaan te ñoom ñu ñëw wax ko ne ko daje gi ak jege gi ak mbooloo mi ak raj rajloo gi Euh, tax na ba loolu loolu daal mooy li nga xam ni mooy mooy gën a tasaare jàngoro ji moom mu seet ci wàll boppam xër gi nit ñi xër ci poroxaan xër gi ñu xër ci maam jaara waxtu màggal gi ñu ne kenn du des ñëpp bàyyi seen i kër Tuubaa yi kenn du fi des feneen kenn du fi des mu xam ni xër googu yàllaa ko def ci nit ñi te neexut dindi neexut a far ne dànk mu ne nag kon léegi màggal gi nga xam ne jàppoon na ko vingt cinq février deux mille vingt et un da koy tuxal da koy fomm màggal gi nag xam ngeen ni kenn mënu koo bàyyi ndax ni ma leen waxee euh, Cheikh Amadou Bachir màggal gëm njëkk a fekki ak léegi juróom benn fukki at la ak juróom-ñaar te musta musta musta musta kenn musta koo jëlal waaye lii musta am ginnaaw lii am na nag loo tax sëñ bi ne jàpp gi mu ko jàppoon la vingt cinq février tuxal na ko tuxal na ko ba yàlla mi nga xam ni moo fi indi lii bu ko neexee jële ko fi suba te loolu lay ñaan bu ko neexee jële ko fi ginnaaw suba bu ñu demee nag ba nga xam ne nii jëlee na ko fi mu wóor ñëpp ni lu ñuy layee amatu fi mu jàpp bis bi ndax xam ngeen ni màggal yi fi weesu yëpp kenn ku ci ne bis màggal ku ci ne bis la boo xam ni bisu boppam la bu bu toxo ñii ci weeru wolof lañ ko jàpp ñii ci weeru Tuuba waaye màggal Poroxaan nag amul bisu boppam sëñ bi rek mooy jàpp bis ginnaaw mooy jàpp bis nag waxtu woo xamante ni mënu na niñ ko daan defe bu njëkk ak bërki démb ak bërki démb waxtu woo xamante ni jamono laaj na ko rek mu jàpp bis bi ñëpp daje kon nag nañ xam ne sëñ bi ñaar rek a tax mu euh, dogal lii lenn benn benn bi mooy sabab sabab bi mooy lii ma leen wax mooy mooy mooy mooy mbas mi ak jàngoro ji te ñi nga xam ni ñoo jëm ci ñoom la seen xam-xam jëm ci wàllu wax ni wax li nga xam ne moo koy yokk sëñ bi moom lépp luy lor jaam yi waxu ci dara sabab biir moo di màggal gi amul bis bis bu bis bu fixe boo xam ne bii dañu naan bis bu ñëwee mooy màggal Porokhane waxtu ko soowee rek mu jàpp ko kon loolu mooy sabab bi la ci desit nag mooy Eh, ginnaaw ginnaaw ginnaaw sabab bi yilla yilla ji moo di xam ngeen ni màggalu jàngoro ji mbas mi ñu fi dugg daaw ci defe naa weeru ci cetu février bu ma juumul kaa bi fi njëkk am ak màggalu Porokhane ay bis rek la ba ba ñuy màggal boobu dëkk kaa yi matut fukki kaa ci ci réew mi moo tax màggal ka ñu màggal ko ci jàmm dem ci jàmm toogaat lu yàgg jàngoro ji mu tàmbalee tasaaroo bi mu tàmbalee tasaaroo itam lu mel nii am xam ngeen ni euh, kër yi ku ci nekk am nga sa bisu bopp am sa bopp bisu bisu kilifa waaye bi lii amee it sëñ bi ñaan digal kilifa yi nga xam ne dañoo amee màggal leen ginnaaw kan ñoom wax nañ ni daje dajale dajaloog mbooloo mi ak rajo dajale gi ak jege gi mooy waral tasaare tasaaroog jàngoro ji daaw laa wax di waxuma ren at mii ñu weesu ba màggal poroxaan jàlle li sëñ bi ñaan màggal gu agsi dajeek loola mu ñaan ka ko ñu bàyyi ko ba ba beneen yoon moo tax gis ngeen ginnaaw màggal poroxaan màggal kazu rajab bu sëñ fàllu ba mu ñëwee ñii euh, lañ def dañoo bis ba ñëwee rek ñu mënta ñàkk daje ñoo daje ñaan waaye kenn baasut kenn dajalewut kenn ñëwut kenn demut fen kenn ku ne sa kër nga toog ñaan fa màggalu Daaru Muhti noonu màggalu suñu changé bu noonu màggalu suñu Abdou noonu màggalu suñu Abdou Xaadir noonu màggalu Daaru Salaam noonu màggalu Daaru Rahman noonu layatul xadar noonu soxna moomi noonu li mu mën nag li ndax ni dañoo gaaw ci fàtte na sama màggal te màggal yépp yem ci sëñ bi sëñ bi nee euh, sëñ Touba ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ak njabootam ni moom jaara ñun ñëpp ko bokk ak njabootam ni kon kenn ku ne na xam ni bisu màggalu poroxaan be ak seen bisi màggal yii njabootu sëñ Touba yi mu tudd ak ñu mu tudd yëpp la yemale fàttewut genn waaye daf leen a jox misaal ci màggal yi nga xam ne weesu nañ daaw atum daaw 2020 yi nga xam ni yëpp bañ ci àggee ñu wax lu mel nii dafa ñaan digle ni nañ daje ci